jël na décision bu am solo décision boo xam ne dafa ñu siggil li nga xam ne moo njàngat bu njëkk bi mooy li ñu dund le 3 février waratul am mukk ci réew mi jamais plus à nouveau un 3 février qui a été un moment sombre de l'histoire démocratique de notre pays

dans une démocratie qui se consolide dafa am yoo waratul ne waratul am le dernier bastion imprenable qui était l'élection présidentielle 3 février cof na ko ñu sant félicitez bu baax félicité wu ci li nga le conseil constitutionnel sigil nañu parce que nous ñun ñëpp ñoko woon niko askan déglu askan wa ngi xaar ci yow nga si boy boy ci lu c'est-à-dire nga nous ba yëf ki à l'endroit je crois que décision conseil constitutionnel puisque loolu lañ nar waxtaane dañ ci dellu mais limu ñu waral moy ñun sigi wat nañ ñun sigi wat ande pas moins du conseil constitutionnel motax ñu rafet lu ko mais xam ngeen ni décision yoy nag ce n'est pas sans conséquence. Décider, voilà, le mot décider. Mangera l'union. beaucoup d'otages politiques gagnent massivement cadre dans quelles conditions selon quel fan le président Wek. Ni ñu duutoon baaraam ni dañu tuumaal dañu menacer l'ordre public c'est des personnes yoo xam ni dañu def lu mucc ayib ñu xëy rek génne leen sans jox ñu explication lan moo ko wënd lan moo ko laal dama leen waxoon fii keroog ni teel am dëgg day dafa neexul mais ñu wax koog ñu bañ ko wax lii président def lii gouvernement bi def am na lu ko lal mani mu neex mu naqadi nañ ko duut baaraam am na ñuy waxtaan loolooy dëgg gi ñiy waxtaan nag am nañ ci droit parce que ñun loolu lañ gëm gis nga réew mi lépp amul luñ fi mënul waxtaane amul luñ fi mënul toog weccantee ko su ko ñépp comprendre lépp dana yomb mais ñun bi ñuy def dañu ne fàng ni jë wax dox